Euh, jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm euh, man président Moussa Diné tey laa war a ñàkk Adama Barrow ñàkk na Macky Sall ñàkk na waaye man mi leen di won ne man maay seen président ñoom ñëpp man ñaari nit ñoo may ñàkk moo tax maa ngi nii ci li nga xam ne mooy corona bi waaye nag corona bi ñàkk yii am na ci ñàkk yoo xam ne ni wóorul am na ci ñakk yoo xam ne wóorul kenn xam ne ban ñàkk la ci ban péngu am na ci boo xam ne wóorul ndax tey coow li bëri na boo demee fu ci mel ni réewum France bàyyi gum nañ ñàkk yi arrêté nañ lépp nga dem fu ci mel Denmark ñoom itam nonu, nga dem Allemagne dem fu ci dem Portugal italy Espagne nyom ñëpp taxaw nañ ndax ñàkk yi wóorul waaye man ñi may ñàkk ñi xam gisee man ma ulo jël samay ñàkk xam naa ñi may ñàkk ndaxte bu ma dara jotee danaa leen samoon danaa leen yóbbu koot waaw kii war ngeen koy xàmme alaaji jinne la kon man buñ ma ñàkkee man wóolu naa leen waaye toog rek salaamaaleykum nga dem ñàkk la wóorut te di xamal ne gi nga ñàkk yii yéen ñi nga xam ne amagu leen jabar wala amagu leen doom bu leen ci gaaw ñàkk yi bu ñu la ko ngaa bañ a ngénte de ñàkk yi bu ñu la ko ñàkkee mën bañ a ngénte am na loo xam ne ne léeboon naa leen ko waaye lupp baa ngi ñëw wasalaam wasalaam